te di la ndokkeel ci li nga xamante ni mooy li passé ci li nga yoroon di la encouragé ci fi nga nekk ak fi nga jëm di am ay laaj yu bari yoo xam war naa la ko laaj yu jëm ci mbirum njàng mi monsieur le ministre képp ku taxaw ne la njàng mi baax na daf lay nax monsieur le ministre jàngalekat yi ak parents d'élèves fi dañoo sonn dañoo fatigué rawatina ñu ñi nga xam ne nag ñoo dëkk maanaam département Mbacké monsieur le ministre le bis 2018 à 413 milliards bis sa 2019 476 milliards bis sa 2020 526 milliards may laaj monsieur le ministre lan ngeen jël jagleel ko ñi nga xam ñooy jàngale ci mbirum arab mi ak alxuraan ndax jàpp naa ni xaalis bi xaalisu réew la ñu ñëpp ñoo ko bokk mu di loo xamante ni tey dañoo war a yamale li naan équité territoriale ak sociale ndax mun ñoo jël montant yu toll ni di leen ko jox te ñu nekk ay doomu daara nekk ci àll bi tumuranke toppatoo leen ñu di toppatoo ñi nga xamante ni France la ñuy jëmbat di jàppale français yi te lu fi jubal ñoom ñoo ko jubal kon loolu duñ ko d'accord il faut que nga xoolaa loolu jàppale njàngum enseignement euh, arabe yi jàppale daara yi ba pare nag nga dugal sa loxo bu baax a baax ba pare wàcc ci terrain bi ndax bu fekkente ni bërki dema mbaay li am rek ñuy sant sëriñ Muntaxa si taxawaay bi mu taxaw muy li am maanaam ci do ci sëriñu daara boobu noonu lu ko gën waral lépp bokk na si ñàkk la ñàkk jege ndax bu ñu jëlee bisu 40 pour cent si la bisu national ñoom ñi nga xamante ni tey bu ñu amee tey jii xam-xam am suñu diinee ci ñoom la ñu ko amee ba pare ñu leen di ginnaawul ñu leen toppatoo lu ñu dal koon nguur gi moo ñu ko teg. te mënuma concevoir li nga xamante ne mooy bisu national éducation nationale ñu jël montant yi nga xam ne moo gën a naw di leen ko jégleel bëgg naa xam ñaata ngeen jël pour jagleel ko enseignement bi nga xamante ne mooy arabisants yi bëgg naa xam 526 milliards yi ñaata nga leen jagleel. bëgg naa xam ñaata daare moderne moom ngeen tabax ci bi ngeen fi nekkee léegi bëgg naa xam fan ngeen ko def département Mbacké bëgg naa xam ñaata ngeen fa def ak lu ngeen fa dugal ndax 2018 wata naa bis bi 2019 fekk naa ko 2020 fekk naa ko muy ñetti at te fi may wax ak yow ñetti lycée yu nekkoon Mbacké ba léegi amul benn boo xam yokk waat na fa kon jàpp naa ni Mbacké moom amul benn lycée bu ñu fa def boo jëmee li nga xam mooy école maternité 1979 benn moo fa amoon ba léegi amaatul beneen boo jëlee école élémentaire au niveau département Mbacké fu may waxee yow nii dañ ko war a yokk ndax dafa manqué ndax ku ne xam na ne Mbacké ñiy jóge Touba di jàng si ça fait 45 pour cent te fu may waxee dañuy dugg si ay oto ñëw te kenn toppatoogu leen il faut ñu xoolaa loolu boo jëlee collège yi collège yi nga xam ne moo nekk Mbacké da ngay gis benn classe boo xamante ni 100 personnes ñoo fay nekk lu tàmbali troisième ba sixième il faut ko département Mbacké kon nag il faut que monsieur le ministre li nga xamante xool ko bu baax a baax a baax ndax am na ay yàqu-yàqu yoo xamante ni am na fi il faut que fi nga teg sa tànk comme président la république daf la wóolu teg la fi te sa xam-xam moo tax ñu teg la fi ndax jàpp naa ni bu fekkente ni dañ jox mbirum njàng mi delloo nan maanaam lan ko war a delloo am na loo xam jëruñu si àgg en maa ngi lay féliciter di la encourager di dëgg xam daal li nga xamante ni mooy montant bi la jox lan nga pare pour def ko deux mille deux mille vingt bi ak bëgg naa ngeen di ñëwati ndax c'est très important def ay chiffres def naa nangami classe def naa te fan ngeen ko def loolu tamit nit ñi nit ñi ngeen koy wax même fekkente ne maam dangeen def ay chiffres dañ ko a xam ngeen def annexe boo xamante ne département def naa fa nangami classe def yokk naa fi nangami table de banc mais fekkente ni ay chiffres kese ngeen indi su boobaa bu ngeen ko wax askan duñ ko gëm xaalis bi jox nañ leen ko ñu ngi la ñaan nga liggéey ko 2020 xam fu ngeen koy def bu fekkente ni pas 3 mois yu nekk ñu càmbar leen pour que bu nga ñëwaatee pour que ñu war leen wataa beneen bis ñu xam ne xaalis bi lañ joxoon fi ngeen ko def en tout cas bonne continuation ñu ngi la ñaan yàlla defal la jàmm ak ndam je vous remercie jërëjëf madame la présidente monsieur le ministre de l'éducation nationale monsieur le ministre chargé des relations avec l'assemblée vos collaborateurs et je vais faire mention d'une sœur c'est la première fois c'est Ndeye Nam euh, que je salue au passage. Euh, monsieur le ministre, je suis content aujourd'hui d'être en face de vous, un ami de longue date. Nous avons partagé la présidence de la République comme ministre conseiller tout au début de l'alternance. Et je disais à monsieur le maire de Matam tout à l'heure, euh, je me souviens des beaux moments que nous avons passés à Matam, où lui, Il m'a servi des plats copieux chez lui. Vous, vous m'avez amené à Sinthiou Bambamé. Bambamé, c'est la première fois que j'ai visité ce coin et j'ai passé deux jours avec vous, avec votre famille. Mais il faudrait aussi que je rappelle que lors d'une tournée en France, j'ai eu l'honneur et le privilège avec Seydou Gueye de présider un meeting. Nous étions dans l'opposition à Mantes-la-Jolie. c'est le lieu de rendre hommage, rendre grâce à Dieu, de vous féliciter, de vous encourager et de vous dire, je serai toujours à vos côtés pour vous pousser, pour vous apporter mes conseils avisés, mais les réflexions d'un homme politique qui a une très belle carrière, une grande expérience, aussi bien sur le plan économique, sur le plan social, que sur le plan d'une vision éclairée pour le développement du Sénégal, l'Afrique et le monde. Monsieur le ministre, j'ai une petite réflexion. Je pense qu'il faut aller dans le sens de l'innovation. Il faut aller dans le sens de changer les choses. On ne peut pas rester depuis l'indépendance dans un seul système éducatif. Avec les technologies de l'information et de la communication, c'est le temps de changer. Moi, j'ai une jeune fille, elle vient, elle m'amène son portable, elle me dit, papa, est-ce que tu sais telle personne pour, comme des historiens, j'ai dit non, je ne connais pas. Elle clique, elle me donne une leçon. Pourquoi laisser les enfants toujours dans le cycle primaire, 6 ans, c'est trop. Parce que pour le Coran maîtrisé, les enfants qui sont intelligents font deux, trois ans maintenant. Il faut réduire le temps à l'école primaire, 4 ans, 5 ans. L'autre problème, je propose au lycée, il faut réduire le temps avec un seul diplôme de fin d'études secondaires, 4 ans ou 5 Mais aussi, il faut sortir de, de ces examens BEPC, à quoi ça sert Le certificat, moi j'ai un BEPC. Je n'ai jamais travaillé sur la base de cela et j'ai occupé des responsabilités énormes. Je préside un parlement dont j'ai fait ce qu'aucun n'a fait. J'ai remplacé un professeur agrégé qui a été ex ex expulsé suite à une motion à un an de son mandat, c'est le professeur Alinoum Diallo qui me rend hommage. Un ancien président, j'ai fait mieux qu'eux. je serai plébiscité dans quelques jours avec toutes les composantes du Parlement, avec motion de satisfaction. C'est ça que les Sénégalais doivent dire. Quelqu'un qui a un BEPC qui a fait mieux, plus j'ai révolutionné ce Parlement en trois ans, quatre ans, oui, j'ai fait ce qu'aucun n'a fait. L'audit externe par les experts allemands ont donné une motion de satisfaction. Aujourd'hui, la commission de l'administration des finances, de l'audit du Parlement a été mise en branle sur ma proposition. J'ai demandé que la plénière le 12 puisse dire qu'est-ce qu'on me reproche. Je suis propre, très propre. Je suis opérateur économique, je veux gagner des milliards. Si je dois avoir des marchés, oui. Si les uns l'ont, je dois l'avoir même sous Macky Sall parce que Ses prédécesseurs ont créé des milliardaires. Je dois en être un. Et j'en serai très fier. Je vous remercie. Merci, honorable. La parole est au collègue Cheikh Abdou Mbaké. Madame la Présidente, euh, Monsieur le ministre, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues, Monsieur le ministre, je voudrais vous saluer, saluer vos collaborateurs et euh, dire à un enseignant que l'éducation est important c'est xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof sax mais xam naa loolu xaw a doy mais ce que je peux vous dire je voudrais d'abord vous remercier parce que au niveau de l'Assemblée nationale vous nous avez fourni des documents quand même chiffrés sur le nombre de lycées collèges écoles élémentaires que vous avez quand même euh, construit. Donc c'est important que nous, en tant que parlementaires, qu'on puisse consulter nos documents. Autre chose est que je voudrais m'apesantir sur euh, le département de Thiès. Monsieur le ministre, euh, dire qu'on a beaucoup fait sur euh, l'enseignement, parce que c'est général quand on parle de l'enseignement, et je serai à l'aise de le dire devant vous parce que vous avez, au niveau, vous avez été au niveau du ministère de l'enseignement professionnel et vous avez quand même eu des résultats nets, papables et précis au niveau de ce département. Soyez-en remerciés et félicités. Mais au niveau du département de Thiès, c'est vrai, vous avez beaucoup fait, monsieur le ministre, parce que quand même ñun ñi nga xam ne Thiès la ñu jànge même ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ xamoon nañ ne Thiès ba un passé récent benn lycée la amoon boo xam ne au niveau du département muy waa Pout waa Xombol ak ñi nekk ci département bi yëpp lycée Malick Sy lañ doon jàgge aujourd'hui rien que dans la commune am na cinq lycées département bi waxaale waxaalewuma ko donc loolu rek wane na exactement fu ñu jugee ak fu ñu toll c'est important de le dire c'est vrai que nag am na ay manquements au niveau des tables bancs pas au niveau de la commune mais au niveau du département parce que am na lycée collège ak yeneen yoo xam ne muy département Thiès parce que quatre IA euh, yi fa nekk muy IF bu Tivaouane IF bu mbuur Mbour 1 IF Mbour 2 IF euh, Thiès département ak IF Thiès ville am nañ les besoins et je pense que am nga li nga xamante ni moom mooy statistiques yi et boo xoolee total IF bi y avait 53 000 total total lycée 4 300 donc loolu mu doon. manque table banc bien que wax ngeen di ngeen am 300000 table banc cette année mais dañ lay fàttali ne Thiès nekk na quand dëkk boo xam ne war nañ mun sedd ko bu baax ci loolu pour vraiment lijjanti problème mu njàng mi. au niveau des blocs scientifiques yu bees yi muy Tivaouane ak Mbour monsieur le ministre vous avez mis du matériel lourd matériel lourd nag dafa ànd ak sécurisation donc aujourd'hui ñi nga xam ne ñooy IA yi dañu ñu saisir nañu loolu bëgg nañ ñu travailler ak le ministère de l'intérieur pour sécuriser ce matériel parce que on ne pas investir énormément de moyens au niveau de ces blocs scientifiques d'autant plus que président de la République sa vision mooy dafa bëgg a professionnaliser enseignement professionnel technique beeg yooyu ba pare ñu mën a am sa matériel là te du am sécurisation donc loolu monsieur le ministre ñi ngi koy jooy foofu bëgg nañ vraiment ngeen jàppale leen ci loolu li ci des nag mooy déficitu enseignants yi am na ci aussi au niveau de l'élémentaire pas au niveau du secondaire parce que sur ce plan i IA bi gis nañ ko amul problème mais au niveau de l'élémentaire am na lu des te li ci ëpp nag monsieur le ministre il faut que ñun aussi ñuy waxante dëgg enseignants yi ñëpp dañoo bëgg a génn classe yi te loolu c'est pas possible c'est vrai que c'est bien des fois dem feneen ak yooyu mais il faut que les enseignants aussi parce que ils le sont par vocation ñi donc je pense que loolu aussi am na pour que sensibilisation ji gën a baax pour que vraiment ñu mën a continuer nekk au niveau de ces écoles pour mën a jàngale xale donc vraiment loolu daal mooy li nga xam ne bëggoon naa la ko wax sinon di la encourager di encourager say collaborateur di saluer ma sœur Ndeye Naam au passage di wax ne au niveau de l'enseignement récrimination yi monsieur le ministre mënul bari parce que on a vu que le président de la République par rapport à sa vision dafa leer nañ ne moom lii la fekk fii la ñu jëm parce que booy wax doo wax naan jafe jafe-jafe am na naam mais dañuy xool fi ñu jóge ak fi ñu jëm loolu mooy bilan nga xool 2012 lii lañ fi fekk tey bi ñu nekkee 2019 lii lañ fi fekk te loolu da nga ko indi lu ñu ay chiffres ñu ne table banc lii moo ci des lii la ñu war a def école lii la ñu tabax eh, eh, eh, école élémentaire lii la ñu def ci matériel euh, lourd ci bloc scientifique yi lii la def donc loolu je pense que lu leer la et on a ces documents là c'est pourquoi monsieur le ministre je voudrais vous encourager vous féliciter et vous souhaiter bon vent